Nice and rich. Yeah. Nice and rich. Lerno. yaa ngi si biir Cheikh Modou Kara bi ngeen di kar kare mu nuy kara li nuy kar te ko ka kar mu karaata la kara mam Bamba kara mam cherno, kara mu jamulo, kara bi rabil arsi CRA avocat CRA YATECA CRA judoka CRA avocat ka bu la jaaxal jarul ut avocat woowal CRA xanaa gisoo maam Thierno Mendy du dox du yore cellulaire moo gën a fort nucléaire du moromu itinéraire li ma lay wax dama ko teg si lu leer daa CRA